xarit dalay xaralas la ci yëfam ni la am koo xam ni kii du xaras laf may la doo waayam sëriñ dalay jariñes laf yar la yor la bu wér xamal la yàlla nga def santam di ab jaar assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw yéen waa suñ bokk déglukat yi auditeurs yi ak auditrices yi maanaam déglukat yu góor yi ak yu jigéen yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen siyaar di jàmm ak salaam sàkk ci yéen ngeen di ñu ñaanal jàmm di leen wax ne rek seen xarit seen soppe seen am di jàmm ba seen fekk ndongo daal moo dellusiwaat fii rek direct bi direct Baol Médias fas yéene waxtaan ak yéen ci émission bi bees bi nga xam ne moom lañ fi tàmbali fan yi di dànjaru xel xalam ah, mu mel ni koy fara di waxee rek ñu ngi tàmbalee suñu nuyoo ak suñu siyaar ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifatul xaama tarixatul muridina ñu ngi koy siyaar bu baax moom ak mboolem njabootu Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Xaadim bi yëpp sët yeeg doom yeeg taalibe yeeg dongo yeeg doomi seex yi ak sët yi ak ñëpp ñu ngi leen di siyaare di ko ñaanal jàmm ak salaam ndax jàmm mooy suñu jàmm di siyaare yi baa kër maam seex Jëmbu Faal mi nga xam ne moo nekk nekkal xaaj moo doon si Ahmadul Xaadim moom it ñu ngi koy siyaare bu baax ko ñaanal fan jàmm ju yàlla yàgg ko boole ak kilifaam gii mu topp ñu yàgg ànd yàgg liggéeyal xaadimal sotti ahmadul xaadim yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla dinañ ànd lu yàgg di siyaare waa den mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp sëri yeeg doom yeeg moom di seexee Cheikh Imaam Ibrahima Fall seen njaboot gaag ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare waaw waaye ñu ngi siyaare it mboolem waa ahlul islam bi yëpp ku mel ni waa kër maam El Hadj Malick si waawoon waa Thiénaba waa Yoof waa Cambérène waa Kaolack kër Baye Niass maam Abdullahi ak maam Ibrahima siyaare waat Sokone kan maam Ahmed Dem di siyaare itam waa Thiès kan maam Ousmane Baro moom daal bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu kenn ñu nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal xam naa dellusiwaat fii ci kër gi nga xam ne fi lañu war a def fi lañuy def waxtaan wi di Baol Médias FM ñoom it ñu di leen bu baax a baax di nuyu mboolem waa kër gi wala waa personnel bi tàmbalee nuyoo bi ak siyaar bi ci Serigne Modou Diop Thiat mi nga xam ne mooy kilifa kër gi tamat kilifa lool waaw ah, mën na di muy def nit ku am décision la nit ku lawet la nit ku wayaf la nit ku bëgg nit ñi la nit ku bëgg lu baax la waaye yàlla na ko yàlla dimbale ba lépp lu muy sàkku mu am ca lépp lam ca yóotu woon yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu di ci tegit fekkasteeram di soxna war xapaal ak mbooleem njaboot googu ñu ko boolee gépp mu ànd ak ñoom ci liggéey bi te tuggane yu jigéen yu soxna yooyee fa nekk waaye ñu ngi siyaar yi itam bàyyi sax gay di jàll duñ ko fàtte ak sëriñ Mamadou Niang bu Ndindi Ibrahima Khalil Diop sëriñ Moustapha Thiam di jë Pako seex na Seydina Issa Diop ak Issa Diop ak sëriñ ba jaw ak sëriñ bi géey ñoom ñëpp daal ñu ngi leen siyaare bàyyiwuñ kenn ak sang bu tedd boobu def yóbbalu subalaat xam yóbbalu bis bi ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di siyaare ñëpp ñaan ñëpp jàmm ak sam jànn yàlla defal jàmm waaw xam naa ko ni def rek mooy dañuy daal di ñëw ak ci waxtaan wi te moo fi nga xam ne tey fi ñu xalam jëmee kon ñu bàyyi leen technicien bi tuuti te ñëw foofu ci bi waaw mu mel ni kon tey de sunu xalam daf ñoo jëme woon ci bis bi nga xam ne mu di doog a jàll dañ yàgg di ko wax lool bis bi ñu wax ne dañ ciy màggal dañ ciy màggal sida baat boobu sax moom di lu ma jaaxal loolu dañ ciy màggal sida maa yaakaar ne lu baax la ñuy màggal waaye lu amul solo kay dee su ko màggal li ñuy wax naa ñu xeex nangam ñu xeex nangam looloo jaar xeex na bu doon bu doon li ñuy xeex am na xanaa kay bis bi nga xam ne ci li ñuy fàttaliku sida di ci jéem a nasaat ay pexe ci waxtu wu ne pexe yu ñuy defar sida bi jóge fi waaye ci la ñuy màggal sida moom man àdduna ba ci màggal sida sida jël du màggal ku màgg la ñu màgg wala ku def lu jàll màggal koo xam ne daa ñëw di di di di di lore rek kooku jëlul jëlul jëlul jëlul màggal foofii nag mu lëjal ñu lool yàgg fi lool yàgg wax ne ñuy xeex sida nangam nangam xeexum sida bi damaa yaakaar daa am ñu bokk ci xeex bi tey dund tey dundee sida kiy dund ci sida nag boo ko bëggee xeexloo sida du sotti lenn lu nekk koy dundee du moo koy rey sida bi am ñoo xam ne ñoom ci li ñuy dund waaw am na ñu ciy dund de dégg nag waaye am na waaye ku ku dawtal sa xel xam ne am na. te bu ñu demee ba si xam ne am na waaw bu ñu demee ba si tuuti dinañ xam ne am na dañ naa buntu yooyu xam ne koo ko seet xam ne ñooñu ñoom ñu ngi dund ci sida amaana muy tey wala mu yàlla nag waaye waaye war ñoo xalam lu ko fi jëlee suñ xel yaa war nañoo toog nag xalamaat bu baax a baax sida mi lan moo ko fi jëlee loolu lu mat lu mat a bàyyi xel la moom waaye awaguñ te yoon ba de. nii def na ngir mucc ci ci xalaat laay wax de toujours daay wax de waxiwuma xam-xam xalaat laay waxe ku am xalaat bu gën a jub boobu bu ko defee nga génne xalaat boobu ñu xam ne xalaat boobu mooy jub mooy li jub ñu jaar ci dama waxoon ni ma teenu jóg meebu te ne ma teenu jóg taxaw ca kaw te yuuxu baat yi ba ñu raw te jéem a jóg meebu te daw ba mu jóg fi baat ñu jóge fi moom si daal laay wax mu teen jóg taxaw ca kaw waaw soo yuuxu te ba gis baat kawe pour nga mën a am wàll da ngay taxaw fu kawe boo ko amee yuuxu sa baat ba mu raw yuuxu sa baat ba déggatoo ko te la tax ngay yuuxoo ko lépp nii loolee nga nag ba tax nga yéeg ci kaw di yuuxu na nga boole ko gémma mebu na te daw wakkat ba loolee la tiital jóg fa bàyyiw nga jóg fa mu jóge fa ci kaw nga am ay wàll ñu ñëw daq ko mu dem way laa amoo ay wàll yow nga jóge fa yow kon fa nga xam ne fa la si daa nekk ku fekk mu laxasu la kum la kum laxasu toroxal la foofee laay wax nañ yuuxu ba ñëpp ñëw jàpp si nañ sa sax nag ba si bi jóge fa bàññu ñu jóge fa kon fa muy laxasoo nit ñi la ci ëpp xamees na ko moom amaana léeg-léeg am ñu mu dal ci ndogal waaye néew na ñi ci ëpp fa mu leen di laxasoo ñoo ñoo ñoo ñoo fay dem ñoo koy ñoo koy teg seen bopp ma ne ma toonu jóg taxaw ca kaw te yuuxu baat yi ba ñu raw te jéem a jóg meebu te daw ba mu jóg fi baa ñu jóge fi saay saay bu bon ko xajal saay saay bu bon bii nekk bi tanu nar ko far ba mu dëkk fi waaye saay saay si ñoo ko jàppale de te saay saay bu bon te saay saay bon duñ ko xajal saay saay bu bon bi nekk fi nu nar ko fa ba mu dëkk yi mooy dëkk fi nag dafay ñëw te fi nekk bi ñu nar koo far ba mu dëkk fi far ma tentee taxaw mu jóge fi ab saay saay dee su koo xajal waaye saay saay si noo ko jàppale suñ si jógul nag mu dëkk fi saay saay ñoo ko jàppale suñ ci jógul nag bu soob yàlla fii lay dëkk saay saay su dee amuti bët yooru te tànk mënta wax kon fu mu dugg leen ko faa dugal suñ ko jëliwul dootu ñëw moom ko amuti bët yooru tànk dootu doxkat fu mu dugg rek dañ ko jëli dugal ko waaye su ko kenn su ko kenn jëleetut dootu fi dikk waaw saay saay su dee amuti bët yoruti tànk man tabax fu mu dugg dañ ko faa dugal fu ñu ko jëliwul dootu ñëw demul dikkul tëddi nelaw ku yee mu jóg ne la kasaw kum ne kasaw nag nga selaw ku deeti waxit yow pare waaw moom di demul dikkul tëdd di nelaw fa mu tëdd rek ku yee rek mu jóg song la ku yee mu jóg ne la kataw te kum ne kataw rek nga salaw yow da ne miit ku deeti wax yow bokkatu ndax dina ne andi métti andi la coono tàgg la ak say bokk kenn dootul nangoo jege ku la réyaloon tuutal la ku la nawoon xeeb la dootoo jar dara boo ko yow nit ñee wax yow waaye yow fu barab nga naa ruq rek dootoo bokk ci wax ji yow loolu ñuy wax naan ñi mu dal ñu di yeen mber di yeen daw dëgg la jaaduwut de ak jullit moom bu jullit moroomu jullitam woppee daf ko war a jàppale waaye nag ñi ëpp ci ñi mu jàpp ñi ci ëpp ak caay-caay lañu ko teg wala càggante ku sàggan nag ba laaw lu mel ni lii ak boo ko laawee ñëw boo ñëwee say bokk sori la ndax loo xam ne baaxul te daawa wàlle bu bëgg a dee soo ko jëlee fi bal indi ko boo ñëwee say bokk daw la ma ne lu waay di wax ba mu téye la su la bàyyee ñu jaal ci say bokk jooy ñu fàtte la te fa nga jël xel fa nga jëm xel dal moom diw daal si daaw wér na ma dégguma ko ah amaana am na nag waaye dégguma ko de diw si daawoon waaye wér na léegi ma nga ne wér na léegi léegi moom ah dégg gu ma ko de moo tax ma ne lu waaye di wax ba mu téye la su la bàyyee ñu jaal la say bokk jooy ñu fàtte la te fa nga jëm xel dalu ndax moom su la ba bàyyi la ba bàyyi ko gëm du tax nit ñi jàppaat la ñoom te àdduna si moom ku fi nekk te kenn jàppatu la te nit ñi nangootuñu la jàpp yow yaa ngi ci tumuraak ba ba nga fi bàyyi ko te boo fi bàyyi ko it xel du ci dal ndax si daal moom ñi ci ëpp. comme leen dalee mooy yàlla leen koy itam ñi ci ëpp laa wax waxuma ñëpp de ñi ci ëpp laa wax ma ne ngir ku tànn yàlla xàll yoon nga ne ci biir yoon ku jaar ci biir dajeeg nga lànk jaar la tere waaw ku yàlla bu xàllee yoon nga ne ci yoon wii bëgg de tax mu ne jaaral ci yoon wi yoon wi kat boo ci boo ci jaar sa noonu baa ci kanam da ngeen daje nga lànk ne bu ma jaar laay bu ma tere lay jaar loo fa dal yàqu teg sa bopp nan jub te maandu seet fu ñu war a dem ak fu ñu war dem ak lu ñu war a wax ak lu ñu wartu wax ak lu ñu war a def ak lu ñu wartu def yow nga lànk ne man fu ma jaar ma neex laay jaar lu ma neex laay wax lu ma neex laay def lu ci ne lu mën a doon sama bànneexu bakkan laa ci xool koo lu ma ca lenn kenn ah mooy lànk fi mu la tere boo lànkee nag yoon wi mu la tere nga jaar si wii mu ne la ku fi jaar dajee tam boo fi jaaree loo fi dal yaa sa bopp ku la yël li yàlla boo lankee nekk te ba musiba gaar la suñ borom ci bopp moo dul moo moo dul def ci xol yi sax pour ñu yërëm la am nattu lay doon ci yow métti ndax yow yaa def tooxi doon woo xam ne bu suñ borom doon mel doomu aadama dañu am mere na la kon xol laab xol bu laab boo xam ne sax moo def ci nit ñi xol bu yërmande ci mu nuyu la mën la ko yërëm moo ko du defati ci xol yi pour kenn di la yërëm bu la noppee yooyam kay dootu def ci kenn mu dee yow yow bur yàlla mii lu mu la tere soo ko bawut yaa ci xare moo teenu taxaw mooy koy tere lu mu nu tere bàyyi koy lenu jik bur yàlla mii lu mu la tere soo ko bawul xamal na ci xare nga nekk xare nag mën ngaa gañe man nañ laa gañe waaye xare boo xam ne lànk ndigalal yàlla tax nga soobu ci boobu xare boo gañee fii doo gañee ëllëg bul yàlla mi lu mu la tere soo ko boobu yaa ngi ci xale ma teenu taxaw mooy tuy tere lu mu ñu tere bàyyi koy loolu jub coow li mënul ñu cee sàmm pay yi te lii mooy garab gi ñuy musal lu def lu dul lii du fi def nii nan def naa si daa bi li mënul ñu cee musal de sàmm pay yi rek nan sàmm suñuy pay te jubal lii mooy garab gi ñu ciy musal lu ñu def lu dul lii si daa fi jóg am naa la wax lii du fi jóg kàppoote kap kas ci yam xanaa danoo mënut a yam lu mën a def du dugg di yam ci lii nu am mu dëkk fi yooyu ñuy kawas yooyu ñuy fab di ko sol jigéen ñi am ci góor ñi am ci ñu ko soloo ne ndax day tax diñ la mën a wàll <laughs> tey lu may def lu ti lu di yam ci li ñu am day dana fi dëkk waaye ñaar ñi ànd di sëy bu yàgg ba léegi te dara jotu leen bu kenn ku nekk yemee ci sa morom ah pour mu topp leen daa jafe ndaxte ndigalu yàlla yi mu waxtu woo ko bàyyi suñu borom a lay sàmmal boppam ndogal yeneen yaa nga xam ne mën na ko caa jëriñ ñaar mën na mën naa ñàkk ndax loo xam ne bu wàlle mooy lu da lu dagg ni lu dagg kam dal ba pare te daggaat la loolu moo xam naa bokk na ci rajo da ci des yaakaar ab jonjoo la bu fekkee yéen ñu yàggoon nag te nekkutoon ci yéen yéen a yéen yéen nekk ba léegi kenn bàyyiwul sa moroom dem ci keneen yàlla mën na leen sàmb kenn du jël njëfandukaay lu dagg lu daggoon ko sida di ko jëfandikoo mu dee dagg yooyu ba ba ba mu dee ci fekk kooku suñu borom lay sàmmal boppam ndax dangaa nekk ci li mu digal ku amut muñal ba yàlla ñëw ko am nga yam tele la lew suñ ko defut day gën a law te ku ki daaw ko tànku waaw ku amut muñal ba yàlla may la ku amut jabar muñal ba am jabar ku am jabar nag yamal te jabar ja mooy ku amut muñal ba yàlla ñëw ku am nga yam te la lew suñ ko defut kat day gën a law suñ ko defut day taw taw ji day gën a tasaaroo gii kat lawtanam kum laaw ku ne fa mu jëm ak yow kenn xamu ko sànq la dafa lay sànq complètement daal ne man suñ gone yi laa yërëm ngir ñax goow daana xoyam ak ñax gu tooy mu ne kotom mooy gone yi juddu andi ko waaw man suñ gone yi rekk laa yërëm ndax ñax goow daana xoyam ak ñax gu tooy mu ne kotom mooy gone yi juddu andi ko gone gi juddu judduwaale ko moom ak baayam ñoo ko teg xaw ma ku mu doon nag ci ñoom ñaar loolu ay ñax googu lakk gu tooy doom ji juddu te moom lay lay tax lay tax ci daam moom jaarut ci fenn ñaari bokk daa daa daa mbokk daa daam nga way jur bu sàggan rek moo ko ko teg xam nga ca day rek wala sa baay ba kuy takk soxna na ko seet ku jëkkër ñëwal it na ko seet nga ci seet docteur bu man seet lu ma la wax nga téye ca waaw àgg nañ foofu de kuy takk soxna fi ne ku ne war nga koo seet ba xam ci lu mu ne ak fu mu loolu ñuy wax dépistage waaye ku jëkk a néewal it <laughs> war nga ko seet de bu baax bala ngaa dugg soo gisee gars yi nag bañ def seen dépistage seet ko ba ne la kii dara newu ci moom ah nga ne ko bismillah waaye di dox ba gis ku ne mugg rek nga daal di soobu rek nga sugg bisa ngi ngeef mën a yugg dafoo jëm ñëwee fii di fi yugg lay doon ju ànd ak yogg na yugg lay doon ju ànd mooy xajatoo fenn danga am kersa fi ne yogg ji mooy day fekk nga am nga ànd ak jàngoro ji nga yogg yogg boole koog ne yugg fi baram nag li gën a bon mooy koo xam ne dafa wér di ba pare te mënut a jege ci nit ñi am na ci kersa nit ñi jëpp ko di dox ba gis ku ne mugg rek nga daal di sóobu rek na subb bi sa ngi jëf nga ne yukk te jëm ñu ne fii def taxawlu naa ci lii ma wax doy na mënee su koo jeexal te ku ne waxoon na ci kon foofu mooy li nga xam ne mooy li ñuy def ngir musloo ko ci daal ak nan naka la ñuy def ba duñ ci bokk kon nag taalifu siddaa bi ci lañ war a dugg beneen yoon insha allahu rabbi finaati naa ci dugg ak ñaari way rek ñaari way dama dañu wax ne suñ nooni démb jur yu tey suñ yu tey ndéef waa gëmoon ne Mustafay gan suñu yoo am ñu ko fay Afrique siddaa bi dëkku fi suñ nooni démb yanu doon xeex tubaab yi toppoon suñ maam yi diñ jàpp ay jaam yooyu dugg ci ñun ñoo jur noonu tey yi ñoo indi sida bi ndeefu gëmmoon la rek boo xam ne mosut a fay ñoom naka jekk boobu ba léegi ñu ngi ci seeni pexe ndeefu gëmmu la woon rek boo gisee dafa ne doom kese boo ca jógee yàqu tubaab bi ku la ci gën a woo gën a seebaru daal tey la gën bañ ku ñuul parce que yéene yàqal loolee ba nekk di mooy dox moo tax ma ne suñu noonu jéem a juutu tey ndeefu waa gëmboon ne mosut a gan su nuyoo am na ko fay Afrique sida bi dëkk fi gan nag su nuyoo fokk mu am ñu ko bay Afrique gan gan gii si daa mii gan la ci Afrique nuyoo fi bu fi nuyoo nag fokk am ñoo xam ne danañ ko fay gan moom waxtu bu duggee fi bari am ñu ko fay dafay nuyoo am ñu ko fay rek moom bëgg a toog buñ ci taxawul na mu toog lan moo waral xeex bi du jeex Afrique jëkk nut ku weex di lekk rek jaaxaan di géex ñu weex ñi daw ba jiituñ Afrique ñu ñoo jëkk nag nit ñu weex ñu ñoo leen jëkk ëpp doole ëpp leen lépp lépp lu tubaab bi am fii lañ ko amee waaye biñ ko amee ñu sekkoon ne lekk di lekk rek jaaxaan nag di yéex ñu suñu géex ñu weex ñu daw ñu lekk rek jaaxaan di géex ñu daw ba jiitu ilee tax ñu jóg jëm ca ginnaaw Afrique gii la Europe jànge naaw gan suñu yoon ak yóbbu sa taaw soo màggatee sa tuxu waaw tubaab yi dañ fee ñëw nuyoo fekk ci maam ñu yóbbu ñu jël seenu taaw yóbbu kon su maam yi màggatee fokk seenu maam tuxu tuxu Europe waaw loolu la moo tax ma ne lii tax ñu jóg jëm ca ginnaaw Afrique gii la Europe dànge naaw waaye gan su nuyoo yóbbu sa taaw soo màggatee sa kër tuxu allahuma salli ala sayyidina foofu lañ ko yemale ba beneen yoon ñu doog dugg ci ñu continuer yéen taalif ba mu jeex insha allahu rabbi kon ni ñu koy defee ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak saar yàlla ñu yàlla boole dafa jàmm dimbal ak yërmande saa yi rek baatin fan gudd waa ànd ak wér gu yaram liggéey bu ànd ak barke jaamu yàlla gu ànd ko nangu ki ne nekkaloon ci seen micro bi ci ci ci waxukaay bi di wax di àddu ngeen di dégg mooy seen xarit seen toppee Bassirou Seck ndongo daal bu nam di wax ne wax pour la naa waxaa fi naa tàkkoon fii xarit dalay xaralas la ci yëfal ni la am koo xam ni kii du xaras laf may la doo sëriñ dalay jariñes laf yar la yor la bu wér xamal la yàlla nga di santam di ab jaar